point de vue lay non point de vue damay lay lan ma tax yéen ngeen Ousmane Sonko jaral len Ousmane Sonko ngeen ci car rapide yi clando yi cotiser. joxe ndox kon 2019 élection yi. Hein? kon waroon na gagné 2019 tontu ci lolu lolu wax waroon na gagné législative lan ma tax lan ma tax Ousmane Sonko maanaam. jeunesse bi faut pas <laughs> faut pas ñuy insulter jeunesse sénégalaise. parce que faut ñu respecter len parce que jeunesse bi ni c'est une jeunesse très consciente. absolument Khadim. donc bo jappé ni jeunesse bi euh, li ñuy def xamuñu ko wala dañoo fanatique si nit non mais bàyyi ma bàyyi ma bàyyi ma développé a xam ne je voudrais savoir <laughs> léegi dama xam ne man xaar bi ay jeunes d'accord comme yow nee nga Sonko maa ngi maa benn jeunesse moo fi am waaw ban jeunesse moo fi am comme benn jeunesse moo on parle de cette jeunesse là benn ah, jeunesse boobu man laay wax muy jeunesse sénégalaise parce que bu ñu waxee <laughs> on parle de la majorité de la jeunesse la majorité nag ki jox voix bi mooy Macky Sall il président de la République du Sénégal moom lañ xam nga xam nga yéen Uh-huh. à chaque fois yéenay nax Macky Sall. parce que je peux dire que les ennemis Macky Sall yi. moom ñi xam ñoo nekk ci parti au pouvoir ñom ñokay koy nax à chaque fois. parce que dañ koy dañ diko jaay ni que population bi yow lañ andal mais c'est normal parce que population bi mom la ñu plus de 56 pour cent. bu en 2019 jàpp dara may s'il te eh, plaît mayma ma s'il te plaît ma ma continuer. xaaral Macky fu mu génne jeunesse bi ak euh, voilà légui bu ñu gisee par exemple li xew ci ci meeting keur Massar man je ne suis pas là pour di comparer parce que ñun déjà meeting Kër Massar bi paré nañ ci on parle de d'autres choses. parce que yakarna am nañu yeneen préoccupation parce que ñun ñooñu defuñu ay meeting au fait pour di di di wane suñu doole wala di def genre yoon parce que tay ji parce que ñep xam nañ dooleem. xam nga 2021 euh, soxla euh, demandé won nañ fi euh, demandé won fi levée de fonds am 200 millions tu vois tay ñi ngi ni ci 333 et quelques millions kon bu avez le financement patriotes sont engagés ngi financer pour le parti Vous avez ci l'engagement euh, physique les patriotes sont engagés pour le parti maintenant vous avez le département yëpp loolu ni. Euh, engagement bi xamante ni moom la population sénégalaise am parce que bu la ko jaralee ngay jugee ci ci lu ay Mbàkke di di jugee ay ay ay dëkk yu sore sore di ñëw ba fii pour pour participer si meeting euh, Pastef loolu dafay wane ni am nañu gëm-gëm am nañu gëm-gëm ci ci ci la parti euh, bu ma xam ne moom mooy la Pastef dëgg la léegi nag tey ji boo boo bëggee ne gars yi dañoo jugee ci département yëpp Euh, ay départe quarante département lañ ah, jógee non mais moom boo dama bëgg nga boo dee may moom may s'il te plaît dama bëgg dama bëgg lu leer dama bëgg lu leer dama ne la nit ñi jóge nañ fu nekk uh-huh. ñëw fii ci département yi ñëw ñëw ñëw ci mitin mais ça ne veut pas dire que ni ci quarante six département lañ bàyyi ko ça ne veut pas dire que ni mm. Euh, meeting bi ñi ko ñi fa nekk ñëpp ce sont des yoo xamante ni maanaam surtout les militants yi xam nañu wala ma sympathisant xam ñoom ñoo jógee si département yi ñoom ñoo ñoo feesal meeting bi bu amul woon tamit même tey ji le président Ousmane Sonko bu waxoon bu kenn génn ku ku nekk na ngay euh, na nga yem sa département teewul meeting Kër Massar dafay fees D'accord, d'accord. d' accord li Khadim li ma lay laaj mooy lan moo tax yéen ngeen déggal Ousmane Sonko ba dem tuddee ko Seydina Ousmane Sonko mu sell mii ngeen di defal lan moo waral loolu jeunesse bi jeunesse bi da leen jaral ngeen génn sam xaalis def Ousmane Sonko loolu laa bëgg comprendre lan moo waral loolu. bon Elmad j' que sànq ma sànq si si loolu laa doon laa doon jëm parce que maa ngi la doon commencé di répondre ma lay wax ni jeunesse bi C'est pas une jeunesse bu ñuy manipuler. kenn du leen manipuler kenn parce que le président Ousmane Sonko ñi ànd ak moom ñëpp ce sont des jeunes responsables. très bien. man mi xam ne je suis euh, de la JPS euh, xam xam lan mooy jeune Pastef parce que képp ku bokk si jeunes yi ñu ngi ñu ngi liggéey ak yow xam nañ la. ñu ngi liggéey yow kon tey jii jeunes yi. Hmm. la majorité d' entre eux ñii ay étudiants lañ dañuy jàng ñii ñu ngi liggéey jàng nañu ba pare di liggéey ay jeunes yu am fulla la yu am jom hmm. man par exemple mën naa ne si si si si si JPS euh, départemental bi ma bokk. Euh, ñi fi nek étudiant aujourd'hui mën nañ leen a compter. parce que la plupart si ñom mm-hmm. ce sont des personnes yo xamné ne jàng def nañu jang fay di liggéey kon ce sont des jeunes responsables. amuñu problème amuñu problème euh amuñu problème par exemple on ne fait pas la politique pour pour am luñu dundé wala luñu ñu nekk wala lu ñu parce que ñàkkuñu ko. Mm-hmm. mais tay ji buñu soxla woon luñu luñu dundé par exemple wala luñu luñu financer suñu suñuy suñuy suñuy suñu étude et tout du nekk parce que parti boo xam a yow yaa ciy def sa xaalis. mat yaa financer sa xaalis yaa def euh, sa sa sa sa xam nga tout le temps yaa ngi sur le terrain nekk ci des di di financer le parti kon bu doon xaalis moo ñu tax a jug xam nañ fi xaalis bi nekk. parce que tey jii meeting may ma elman ay gali gis nañu meeting bi euh, Kër Massar. gis nañu les vidéos gis nañu jeunes ay jeunes yoo xam ne dañoo ne dañ leen a fay xaalis. mais ak yéen ah? itam non non elman loolu. am am na ay vidéos yi wax loolu nañu vidéo elman ay audio hmm. boo gisee vidéo boo xamante ni ah. dañoo wane ay jeunes ñu sol ay t-shirt. danañ ci ñëw danañ ci euh, public ki nga xamante ni mooy Khadim Fall bu nekk euh, coordonnateur

wóoruma de waaw dañoo dugg ci oto waaw biñu demee xaarim wax na ko xaarim nee na am na ñu doon jënd ndox di leen jox ñii naan waaw loolu defe naa du xaalis ndox defe naa ndox moom dafa wàcc si duñu ay duñu ay responsable du parti

ñu ne ñooñu dañoo luyu oto yi ñu ñëw bu dee ci beneen cas bi ñu ne non kenn luyu oto ñoo passé seen bopp ñëw xam nga fan ngay juumee su ma paree nga su ma paree nga wax bu pouvez noter bu ma paree nga wax mooy ñëpp ay sénégalais lañ ñii demal parce que ñu ñëwal APR bu Pape Djibril Fall wootee ñooñu ñooy dem hmm. même même même type sénégalais bi quoi même personne ah c'est les mêmes laa la wax d'accord man mii wax ak yow ah. Sonko bi muy publier livre am fii nii dama dem solution solution madame, j'étais à côté de Sir euh, Yirim Seck Ne non ah non cela cela ne veut pas dire que dama dem rek dama ànd ak wala ah voilà parce que livre le, la publié, le publier mu wax ci pétrole Tu ba livre bi pour mu livre boobu lay pour sukkandiku c'était en 2018 pardon pardon pardon ne me coupe pas bu fekkente ne ci livre la sénégalais yi di sukkandiku pour mën a ñu mën ñëw jiite ñuy mën a jiite ka dëkk gent paate ah. wala ka dëkk mbadoxul ah. ah kon y' a problème y' a problème y' a problème Macky Sall def na ko fi génne man j'étais à Dekkal Ngor ah, le président Ousmane Sonko ba ñuy bind livre boobu sama programme pour ma jiite mi Macky dafa wër Sénégal gi yëpp. président Ousmane Sonko ba ñuy njëkk a génne lii nekkagul candidat présidentiel 2019. Macky Sall ñëw na Arafat. très bien wa léegi da nga ñëw. ñëw na beneen bi ñëwul ci euh, lutax ngeen bëgg éliminer Ousmane Sonko. lu tax nee nga lu tax bëgg éliminer Ousmane Sonko. waaw sa way xam nga lan moy problème bi. Ah. bu ñu wax wax élimination. li ñuy wax. islam daf ni. waaw ah. xullil xaq walaw kaana muran waxal dëgg donte dañ lay rey. d'accord fi dañu wadi wax dëgg. wala lamine bu waxul dëgg wax safane waaw fi lenn mo fi am. mo am ndax yow soo ma tooñ amul droit bu la si yoon deug la nit damay lacc waaw deug la mais legui su mo lay bes yoon ay sa lañu fal mo ñu complot bu fekke complot am damay lacc rek fekke bu dama complot damay lacc ma toy mu ñu bulu ci yoon hmm. legui legui wax nga fi euh, Suleiman Tiliko le projet de Suleiman Tiliko ma jambal jaay lan mais projet bi ma jambal jaay mo waxal Suleiman Tiliko lu reey na yor na ay dossier d'accord Suleiman Tiliko dem porter ko plainte hmm. wa ndax lool complot la waaw loolu damay laajte rek fu ñu fu ñu xaaree waa dëgg la damay laajte rek mu waa mbaa noo rek waa d' accord complot am na fu la amu fa waa d' diffamation lañ ko moo wax Souleymane Téliko demal porte plainte Madiambal Diagne dossier Adji Sarr Sonko dossier Adji Sarr Sonko Macky moo ñëw yenu Ousmane Sonko ay vingt une yóbbu ko fële suite bu mu mu dem ku ne mën na fa dem Sonko moo ne dafa yor kii ndiggam fii nii xool ma xool ma fii moom moo dafa yor ay douleur lombaire mënoo yor ay douleur lombaire nga am ñaari soxna ñu war laa dàmp nga nekk député am nga dafa ñoo yëpp mm. compris dafa dafa insulte sax la jeunesse sénégalaise bi nga xam ne ñu ngi ko topp man dama ne nit ku am conscient nit ku tranquille nit ku xam fi mu bëgg dem war na mën a moytu genre boobu noonu très bien tey ji yow mënuñ la wax na la tey kii moo war a jiitu réew mi ëllëg à chaque fois mi andi ay dossiers yo c'est contradictoire man le dossier de Mamour avec 94 milliards ba 45 milliards yi utiliser nañ ko mën na wax fiñ ko jëlé, mën na wax fi qui bi nek lepp mën na ko wax. Hmm. ñu ba ma di dossier ba 46 plus R, Afrique delloo nañ ko seeni mu encore dama ma je ne sais pas le ministre là. Eh, mam Mbaye le ministre Mam Mbaye hmm. mu nous avons tous les documents. waaw ñu a documents mu ko tribunal. Le hmm. tribunal waaw tribunal à la. waaw bi avant loolu aller une mu tuumaal fi Aliou Sall. Hmm. ba ñëpp taxaw na Tout le monde fait fi Tout le monde, la gor yop tout le monde, tuuma tuuma tuuma tuuma tuuma. monde. tuuma monde, amul benn ngi ci indi kenn est li nga hmm. attention waa Pastef nañ xam kan Sonko en 2017 mu dem élection législatif. d'accord liste Imam Mbaye la li si Imam Mbaye. Imam Mbaye Niang ah bàyyi Mame Mbaye. ministre. Mame Mbaye Niang ministre Imam Mbaye Niang liste demee élection. Mame Mbaye Niang ministre. voilà Sénégal 2035. ma déggu ma dama la dama la. Hmm. élection député yi Sonko génnee.